moo jur suñ xarit suñ mag jii dem tey Cheikh Aboubacar mii gaaw a tari alquran ci daara bay alaaji asta Cheikh Maaxi wax na ko léegi ci jotaay ba ne ñoom ñaar ñoo tari ci benn at ci benn semaine sax mu ne dafa pari dafa tari ba pare rek Cheikh Aboubacar mi moom itam tari booba tari alquran mi nga xam ne sotu bay alaaji asta la nee ma sëriñ mbay mii dem tey ba muy tari alquran ñun ci daara ji ñun juddooguñ ñun sët yi waaye teraanga rek la gàdduloon daara ji teraanga yañ ko defaloon ca lii bi sax ay ku ay neexal yuñ ko fa defaloon ci jiite gum fa jiite la ak alquran ju rafet mu ne ba mu ñëwee dafa ñëw dafa jox ko baayam ne ko teraangaay alquran bu ma am ci àddina ci sa baay laa ko jëlee kon teraanga ji yaa ko moom mu ne ñoom ñiy sët des feew nag moom itam buñ ko juboon ci jataay fii ci këram sax bu leen gisee rek dafay jóg taxaw te wax weer wu jot ndimbalam ca daara ja daan na dem kooku lañ nit ku baax ñàkk nañ ko ñàkk nañ jullit boo xam ne jullit la woon xaafisu ñàkk nañ boroom xam-xam ñàkk nañ nit ku tabe nit ku wegu nit ku yaatu nit ku oyof nit ku bëgg ñëpp nit ku fonk ñëpp nit ku am teraanga koo xam ne xam-xam rek la doon jëfee musta musta musta muñal jumaa ji ajjuma bu daan ñëw ñim ñeen jumaa ji yëpp xam nañ ko ñoom Cheikh Abdou Malick ñii daan toog ci kanam daan nañ ko gis bu ñëw di julli si ajjuma ñi da dañ koy jàppoo dañ koy dimbale sax waaye bu eg mënut a ñàkk a julli si ajjuma te ba nga koy man foo toll di dégg baatam ci wasifa ak xam si loolu lañ xam ci moom nit ku baax la nit ku tedd la nit ku am am teraanga la boroom xam-xam la woon bu doon jëfee xam-xam wax dëgg yàlla li Cheikh Maaxi li Cheikh Maaxi wax tey ca jumaa ja nee nañ Medina ñàkk na kenn ci ay doomam mën naa wax ne kennu ci kennuy jumaa ji boon rës na bàyyi daan na ko wax su nit ku mel nii demee daf naan kenn ci kennuy jumaa ji rës na amuñ dara luñ ko mën a muñee lu dut ñu ngi koy ñaanal yàlla fa jëm ne yàlla na fa fekk teraanga ju ëpp suñ njort yàlla na ko yàlla mën a gan yal na yàlla deset njabootam yal ci yàlla teg loxo yaa rabbi ya allah yal na yàlla teg loxo ci njabootam yàlla bu ñu weddi dara li seen bàyyi nekkoon ndax weddiw dara li bàyyam nekkoon yàlla bu ñu ko weddi ñoom itam yàlla bu ko seeni doom weddi yàlla bu ko seeni weddi ba péncam yàlla yàlla na leen yàlla defal loolu ñu ngi masawu coono ñépp ndax xat-xat la xat-xati jamono la te timis jot na ëllëg bii xam ngeen ne buñ toogoon fii ba bis bi del si ba bis bi del si wala ba waxtu bi del si ëllëgit di wax ki ñuy wax ci moom nuñ koo jeexal ci ay baax baaxam ak ci ay jëfam yu rafet ak waxam yu rafet waaye ñu emale ko fii rek jox Cheikh Mahi mu wax kàddoom su fekkee am na keneen kuy wax eh, ñu wax ko ñu ewi ñi ñu dem maa ngi wax rek ne jataay bii eh, ana Abou Tahir xamaada ah, mooy mag xamaada tant bii tey na nga ko dindi incha allah delloon chaise bu fi dara des buñ fi toog di ko def ñetti fan bu fi kenn daayira nit ñi xewal nañ ko léegi musuñ koo def ci jamono bàyyi bàyyi defalu ko kenn bu fi kenn daayira bu bis bi del si déwén ñu di ko def ñaanal wàjjur ku ne xam na ko bàyyi nee na bi nga xam ne rot na ci sunna te bàyyam wax ko bind ko mu ne duma ma ci yokk benn xaraf mbaama di ko ci wàññi mooy ñam yu mu gënoon a bëgg ngeen saraxel ko ko juróom-ñaari fan lu suur kenn nit bu leen tànnatu ko soxla jox leen ko ko jeex na takk amul bis bi del si beneen amul leneen xewal nañ ko ci dëkk bi bëgg dëj la ak bëgg àddina ak sos biddaa boo xam ne bàyyi defut ko fi yoon bu leen ko def yéen ci ngeen ñàkk tey duutoon nit ak bidaa baayam duutoon nit ak bidaa sëriñam duutoon nit ak bidaa asalaamaaleykum wa rahmatullah